salaamaaleykum mbokk internet dakarnet point com comme ni ñu koy defee à chaque fois yaakaar naa ne ki ñuy dalal tey ji euh, kenn jarul sax ñu koy présenté moom présenté na boppam euh, muy Jacob balle euh, nekk doom ci Ama Baldé aussi nekk seet ci Falaye Baldé yaakaar naa ne kooku moom bu waree bëree rek yaakaar naa ne war na bëree duñ defee lu jox ko kàddu yi mu nuyoog mbokk internet dakarnet yi après indi ko moom ci waxtaan mbër ñu leen di di la ziar. waaw ñu ngi lay fay di waaw di sant ñëpp ginnaaw bi ñu sant yàlla julli si yonent bi sant suñu ñaari waajur di ñaanal seen papa fu mu tëdd yàlla mosu waaye maam Jules Balde junior Moussa Lo sama maam Mbaye Guèye maam Double Less maam ñu ñu ñëpp ñu ngi leen di masaw di leen ñaanal suuf oyof seen kaw waaw fu ñu nekk gënal fuñ fu ñu jóge waaw ba si Moussa Balla tamit ñu ngi koy jaale ay famille ak sama benn koo xamante ni presque sama camarade de classe la woon nooyun mbay waaw maa ngi koy jaale waa famille bu baax baax a baax a baax a baax métti na trop ndax maa moom ñoo defandoo lépp waaw mun naa wax loolu làmba ñu tàqale rek mu ngi noonu ñu koy maa ngi koy jaale tamit waa sixième F waaw ñu ma bokkaloon classe sixième ba quatrième F bi maa lañ koy waaw maa lañ koy jaale daal di leen masaw alors mi ngi noonu yaakaar naa ni kooku mooy euh, Jacob Baldé duñ defee lu dul dugg waxtaan nag moom euh, fi ñuy commencé rek mooy dañ koy laaj sa wàccaay combat nu ba xam nga nag nga doon waajee sa combat ba démb nga taxawoon doon bëreeg waa yooyu noonu. waaw di di nuyu waa Ngor Wakaam Yoof Bargny Tubaab Jalaaw. Mhm. yéen di leen gërëm. Mhm. waaw waa Kayar waa Bargny. Mhm. Rufisque. Yoof Ngor Wakaam Caaroy. yéen kaw yéen suuf ñaŋal dëkk Lebu yi daal fa mu nekk yëpp maa leen di di leen sant di leen wax waaw gis naa mhm. sama côté papa yi maa ngi leen di gërëm bu baax a baax waa añaak mhm. ak waa uñoog tamit gis naa seen taxawaay bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. sama xarit yu may àndal soo doon leen ci combat bi sama xarit yi ku si mel ni Pape Baye Niass Sidi Thierno Tidiane ñoom Cheikh tiijaan Papa Fall Cheikh Cheikh Baye Fall Daabo Daa Ndol Omar Papa Fall. ñëpp gaa yi daal limee da ngay juum su sax dama juum. sama mhm. yaay Jatu Gey moom aw ma fayam. Mhm. di sama soxna ak waa këram. Mhm. waaw moom tamit. jàpp naa ñaan yi jàpp nañ ci bu baax ak Baye Fall bi bébé sëy bébé sëy bébé sëy maa bu baax a baax a baax a baax moom moom Baye Fall la. waaw di ko ñaanal taw bu baax. nii noonu kooku mooy ah, Jacob yaakaar naa ni démb combat bi nga bëree métti na woon trop a ah, ci arène national bi mais ginnaaw bi nga amee victoire est ce que nga ñëw dikkalaatal tuuti ci combat bi. waaw combat bi. Mm-hmm. dañ ci sant yàlla bu baax a baax a baax a baax. parce que métti woon na trop waaw waaw woon na trop parce que dañuy jël ñu ne waruñu ko woon jël parce que moo ñu ëpp doole wala moo ñu yooyu noonu. Mm-hmm. mais comme génn nañ ci ak jàmm dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax. Mm-hmm. di sant seen papa Alpha Ly. waaw ak seen papa Cheikh Na Keita. ak Pierre Ndiaye. sama papa Pierre Ndiaye maa ngi koy sant bu baax a baax ak sam papa Zil. Mm-hmm. maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di ñaanal ama ndam lu set huit. Mm-hmm. nga xam ne treize moom tamit mu ñëw amaat beneen victoire. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla. alors mi ngi noonu ah, ñu gis ñi combat bi xeex bi metti woon na. Jacob waaj bi nga njëkk a jàppanteeg moom bien ñaar la ngeen yëgante. ah comme taw fee rek comme ñëpp lu ñuy yëg rek lay yëg. waaw parce que bu xeex bi commencé ah, ñu bàyyi ñu ngi woon ne waa ji moo dominé ci xeex mais boo ko jàppee làmb jeex. ah dañoo wax seen xalaat rek. fii moom dañoo fay ñun ña ñun ñaar ñëpp lañ fay. Mhm. waaw ñoo fay ñun ñaar ñëpp. <laughs> ñu ñëw di jëflante moom champion la jàmbaar la. pour euh, pourquoi waa ji déglu la ba benn est euh, bi ngeen demee ardo wala ba arbitre bi mu sifflé nga dem gis sa papa euh, Jules Baldé mu waxtaana la est-ce que mën nañoo xam exactement lan la la wax <laughs> parce que instant yi combat bi métti woon na. waaw métti woon na trop. Mhm. waaw nekkal nandite rek la ba wax. Mhm. loolu kese la la loolu kese la mais pourquoi nga ñëw attaqué waa ji ko andil bagaar. waaw bu sap sap. non suñu xeexul résultat du mun a am il faut ñu xeex pour résultat am. ah il faut nga xeex pour mun a jàpp waa ji. waaw xam nga mhm. suñ demee fu demee ba nooy rek. Mhm. day waaw day neex a tëddal. Mhm. waaw lu dëgër moom day naqaree tëddal. mais waa ji nangul woon bëree wala. wala conseil la woon bëree mu ngi doon bëree sax mu ngi doon bëree. ñaarey bëre mu ngi doon bëre. mais waaye loo def moom day taxaw di la seetaan. waaw loolu mun bëri yaakaaroon doo bëggoon juumloo wala. non. ah <laughs> parce que gars yi noonu lay bu ñu xamee ne kii ah, des fois tem ñu bàyyi la nga da ah, ba yóbbu la nga xam ne da ngay def benn faux pas rek ñu exploité ko. non Boy Diobass champion la. Hmm. ñun tollootuñ foofu si làmb. Hmm. dañuy jàpp ba mu wóor def lu ñu war a def. ndax hmm. ñu topp suñu ginnaaw bëri. waaw waa Pikine gis neen taxawaay bu baax a baax a baax di sant ñëpp. Pikine yëpp ñu ngi leen di sant waa Maris tamit. Mhm. waaw ku si mel ni Lamine Balde ñoom Pa Diallo Sadio. Mhm. Mbow. Mhm. Omar ñoom grand Babs grand Diop grand Tafa Père Diaw waaw ñoom ñëpp Souleymane ñoom Rasoul ñoom Demba. Mhm. waa maris gi yëpp daal maa leen di béggee Samba ñoom ñëpp daal. waaw grand gànn jàpp nañ ci bu baax a baax a baax gis naa seen taxawaay. Mhm. waaw mais mais mais am na lu ñu jaaxal ci combat bi mooy première fois bi nga ko jàppee. Mhm. ba takk ko mais après daf la retard lan moo waral loolu. non dafa niin <laughs> dafa niin trop. ah waaye dafa niin dafa niin wax naa ko arbitre mais nee nañ gis ko man leen ah tawféex garaawul moo tax après may jàpp ngemb li ba mu dëgër. ba mu dëgër maa ngi koy gis waaw doo koy def action. ndax kon niin moom il faut nga jàpp ngembam. ah d' accord du waaj dafa niin. dafa niin ba pare taxul woon dara. <laughs> mais wax nga ko arbitre bi mais arbitre bi pourquoi ñoom. Euh, non làmb neen ko def nañ seen devoir làmb neen ko mais man lu ma sentir ñoom ñu ko. yow jàppoon nga ne bu niinu woon action bi foofu lay jeexee. waaw su niinu woon moom ba ma ko taxee moom wax dëgg fa ne yàlla fa la doon jeexee. Mhm. mais sant yàlla rek lépp yàlla waaw di ñuy tamit sëñ Moustapha borom turki mm-hmm. waaw borom caw sa xiir bi Moustapha mm-hmm. jàpp na si bu baax a baax a baax a baax ak sëriñ mm-hmm. waaw waa mbedd Fass yi tamit maa ngi leen di nuyu bu baax a baax a baax a baax waaw mais aussi gis nañ la Jacob moo vraiment démb li nga andi ci public li nga andi ci ay supporters yaakaar naa ni euh, léegi nekkatoo mbër bu ndaw tey jii kan nga yaakaar nga ni tey jii moom nga war a jéem a mën a affronter pour mën a bëre moom parce que vraiment say morom yaa ngi leen di daan macha allah yàlla na jëm kaw ah ñun am mhm. ménagère ñu kii la rek kooku la ñuy jël. Mhm. waaw nag ñu jox ñu Diène Kairé. Diène Kairé waaw. mais Zako man xam la moo ma jaaxal ñëw naa fi benn jour def ak yow euh, émission. Mhm. mooy sa combat ak yaag euh, Mbañin Kairé. mais à chaque fois Diène Kairé ngay laaj lan moo waral loolu. waaw day dóore day dóore boo tax. day dóore. waaw dafa bëgg xeex. <laughs> yow pourquoi nga bëgg <laughs> kuy dóore man. <laughs> Ah. blessure rek laay bëgg di ah. waaw na am victoire rek mais na am blessure. mais mais pourquoi loolu parce que am na mbër yoo xam ne bu ñu naree am blessure ñoom dañuy jaay seen journée ah. ah mu de taw feex daal mooy loolu. mais tey avance Diène Kairé bi ñëwoon di di nga bëre ak moom. incha allahu rabbi. yaakaaroon ni teel na. non benn dugg foofu moo ñu dese muy maag moom. Mhm. da nga fa amoon victoire non. waaw waaw léegi da bëgg moom bëgg yow moom quoi. waaw bëreeg jët incha allahu rabbi dañ koy tàllal loxo comme gannaaw yi duñ ko mayee mhm. Mhm. mais am na ñu ma wax démb comme combat spécial bu rëy bi nga xam ne bëree nga ko euh, ñi ngi naan sa combat yaag Tapha bi nga xamante ni démb daan na Liss Ndiago naka nga ko gisee. waaw kuy laajte jéen kañ loolu lañ neen combat boobu lañu bëgg. pare na nekkoon dimanche bii sax damay tepp lii bi rek aca nekkaatal mais mais mais gis nga dafa am mbër Jacob nu mu daanee waaj da koo dóor mu daan. waaw loolu laa bëgg woon kuy dóoree dégg ko man la moo tax may laajte jën dafa am maa ngi koy dégg muy laajte soq kañ. waaw gaa yi xam nañ maa ngi dafa am ay combat bi. jën ñaar kon bu ñëwee ngeen leeral ko. su yàggee rek ci moom la yàggee. non Jacob est-ce li nga am victoire moo tax wala nu mu demee noonu. <laughs> victoire taxu may wax. mais damaa gis dafa am mbër gars yi ñu ngi naan non est-ce lii est Jacob di duñ ko jéem xaar utaal ko loolu yoon ba ci kanam mais dafa am mbër. man utuma champion lay sama yoon de. Mm-hmm. xoolal combat yu ma bëri yëpp. combat yu metti waaw. Mm-hmm. ba combat bi sax nit ñi di bàyyi rek. Mm-hmm. rek ci laay jël waaw. waaw. nuyu waa yéen. waa ñoo nekk ci ginnaaw lébu yëpp. waaw ñu sama ginnaaw sama yaay tamit maa ngi koy nuyu. di nuyu sama mbokk yaay yëpp maa ngi leen di nuyu. di sant mhm. sama yaay bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. sonn na ci bés mhm. na ci sonn dafay euh, euh, dañuy seetaan ngay dem ci ay tournant ñu gis ne à chaque fois yow saa bëri rek sa papa Zil Balla da lay topp. sa ko ba arbitre ne prip ba nga war a look sa adversaire boo xoolee sa papa lan ngay yëg. waaw leneen yi xam ne tey. parce que dañoo gis day toog à à chaque mois day sonn seen combat. trop. man yaakaar naa sama deuxième combat. ba ma bëree ñàq. Mhm. pare ma xool ko mu tuur xewal. jooy ay jooy métti. billaahi après si laa ne. am na yoo xamante ni waratuma cee dugg waratuma cee ne. Mhm. entraînement dong laa war a def. Mhm. moo tax it ñu ne ci di entraîné yàlla diñ suturaal di gën a ñaan yàlla suturaal ñu. waaw mu ci moom daal ëpp na. waaw di gërëm sama bàjjen yi tamit. su mel sama bàjjen jiina waaw sama bàjjen jiina. bàjjen may mun a mun a kodd xajatu. sumu ndaw jàpp nañ ci. sama hmm. tante Ndéla la du sama tante. sama yaay Ndéla mais <laughs> ci ci bu baax a baax. après di nga tàggatoo <laughs> incha allah. waaw li ay mbooloo dafa bari quoi. waaw gars ñoo lii rek gars yi ñooy tàmbale mobiliser wu rek. kon nag xam nga ni yow instant yow jàpp nga ni tey waa Pikine instant yi ni def nañ la espoir. waaw ndax mhm. xam nga rek. gars yi moom parce que rek ñun dañuy gis li nga xamante ni day bees. waaw xam nga gars yi moom. fii mhm. yaa ngi daan moom affaire yi day gën a dooleeku. Mhm. wax di si sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw sant bu baax a baax. sant yàlla rek ñun bu dara lépp yàlla la. lépp yàlla la mi ngi noonu yaakaar naa li ma leen wax rek xale bu am avenir da xale bi nga xamante ni waa Pikine gi yëpp euh, euh, am nañ ci moom yaakaar euh, comme ni ko waa Pikine amee ci papam mais Jacob bi nga jëlee ku lan nga yëg. waaw dañ ne taw tawféex rek <laughs> ndax dem ardo moom ñëw mis nañ ko dem ardo ñëw daan. mis mhm. nañ ko. mais pour pourquoi nga jël ku gën a affronter waa ji parce que waa moom à chaque à chaque bi ngeen jàppantee man boo ci li ma jàpp dana ne kii il faut ma jëm ko toucher affaire yooyu noonu. non hmm? papa gaynde la sama yaay gaynde la. Hmm. waaw am na yoo xamante ni sax. Hmm. <laughs> waaw botut a wax. Ah. dañuy sant yàlla rek. alors mi noonu léegi xam naa du def rek ah, dugg ci combat bi ngeen xamante ni ñun ñu ngi koy préparer ay at. combat boobu su ma nee ñu ngay préparé ànd xel yi day dem ci combat Ama Baldé ak Modou Lô. ngeen ko la waajee. waaw ñu ngi koy waaj ñu ngi ci bu baax a baax a baax a baax. macha allah mhm. di ñaanal Ama jël bu gaaw. Mhm. waaw lu mu nar bëri ci lu métti rek. Mhm. moom Modou Lô yàlla naa ko bëri man. na ñëw rek daal waaw. na ñëw rek daan waaji mais est-ce que ñëw daan waaji dina yomb. waaw du yomb de mais su ko tegee ci entraînement yi mu ko war a teg rek incha allah dina yomb. Hmm. waaw mais Modou Lo à chaque fois day mel ni li yombal combat bi. Hmm. naan ay Ama euh, bu ñu tëjee maa ci nekk euh, day yuuxu loolu naka nga ko gisee. waaw ku nekk day wax xam rek. Hmm? ku nekk day wax lu lii rek. lu ne ci moom. xëy moom lu ne ci moom la wax. mais bu mu xam lu mu ci fekk rek. ah bu mu xam lu mu ci fekk comme ah. lan la ci comme lan la mu ciy fekk. waaw comme lépp rek. ndax Ama mu ngi entraîné mu ngi ci ay yëfam. macha allah. mi ngi entraîné ci wàllu xeex beeg wàllu bëree bi. ama lépp. Hmm? <laughs> mu ci lépp. te lan nga yaakaar tey jii nii moom nga war a mën a sa ah, ah, mun naa ni yenn a bokk ah, di di contact yéen a bokk def lépp am nga tey conseil bi nga xamante ni wala xalaat. Hmm. bi nga xamante ni tey jii war nga ko mën a jox sa papa boobu di Ama Baldé contre ak Modou Lo. non Ama kañ dépassé na lu mu war a def. Hmm. xam na ne arbitre bi suñuy prix. attaqué lañ ko xamee. Mhm. du ko bàyyi arbitre dañuy pirip muy attaqué incha allahu rabbi. Ah, ama yee bu jóg. waaw mhm. ama yee bu jógee mhm. loolu mbëri ñu ko antan bëriwul de est que am na ko ko antan ama yee bi. <laughs> mi ngi noonu. alors mi ngi noonu moom nee na ama yee bi ah, gars yi àttanuñ ko comme ni nga koy waxee rek ñun à chaque fois dañuy bëgg ah, bu Jacob daanee ñu ñëw seeti ko waxtaan ak moom day nekk li nga xamante ni day difficile nag parce que euh, ñi ngi naan ko sax euh, moom moo nga bàyyi ba ba gën a tane nga doog a génn def mais defu ko lu dul bëgg-bëggam ak li nga xamante ni mooy métier xam ne ci métier la ko fekk. Mm-hmm. duñ def rek lu dul jox ko mu tàggatoo mbokk internet yi xam naa ne bëgg nañoo gën a waxtaan ak moom mais temps moo amul ak aussi moom tamit am na li nga xamante ni war na ko mën a def. Mm-hmm. doy tàggatoo mbokk internet. Dakar Net waaw di mm. ñëpp di nuyu monde à travers Dakar Net. Mm-hmm. waaw. waaw di santaat sama papa baax a baax a baax a baax a baax a baax sama papa Zil maa ngi koy santaat bu baax a baax a baax a baax di sant Ama Demba ñoom Aziz Waly Diaw sama bàjjen yi may mun a jaaw aji ñoom Mariama ñoom ñëpp daal asi di sant sama gars yi nag waaw sama gars yi maa ngi leen sant bu baax a baax a baax a baax a baax ku su mel ni Kocc Daabo daa Ndol Cheikh Sey Cheikh Tidiane Papa Fall Idi ñoom daa ñoom ñëpp daal gars yi maa ngi leen sant ñoom Cheikh Baye Fall waaw gars yi yëpp maa ngi leen sant waa Maristes yi tamit maa ngi leen sant bu baax a baax baax a baax a baax baax waaw ku si mel ni Pape Pape Ndambe Baye Niass dañ see sonn sonn nañ ci combat bi Sidi Thierno Thierno moom mention spéciale mooy loolu sant Aliou Ndéla te ma gën a xam sama raq yi tamit Babacar Pokola Ousmane Guinté nu mag ñoom elo ñëpp suñu waa kër daal maa ngi bëggee ñëpp di sant ñëpp daal waaw di santaat pertam bu baax a baax ak Baara Baara Baara maa ngi lay sant bu baax a baax a baax a baax a baax di nuyu waa yi waa Kayar Ngor Wakaam Yoof Bargny Tubaab Jalaaw yéen kaw yéen suuf di nuyu daal dëkk Lebu fu mu nekk yëpp waa Caaro yeeg waa tund jande maa ngi leen di nuyu fu dëkk Lebu nekk rek maa lay sant di la gërëm te wax ñaan bi yegg si na waa uñoog tamit maa ngi leen di waa Casamance Casamance gi yëpp waa Bignona Ziguinchor fépp maa ngi nuyu ñëpp waa Guinée sama dëkk papa Koyada waa Kolda ñëpp maa ngi leen di nuyu leen sant ak waa Tamba tamit. alors yaakaar naa ni ah, li ñu amoon ci ay waxtu jeex na ah, aussi tamit comme ni ñu koy defee à chaque fois rek dañ koy kon mu leen ko waxee saa bu daana dañu am envie jël ko parce que làmbam diñ ci gis jom diñ ci gis fulla diñ ci gis fayda euh, ba ba yàlla defal ko ci ndam di ko ñaanal di ne ci carrière moom moo ko xam yàlla na ko suñu borom defal incha allah mu nekk roi des comme ni ko gars yëpp di nekkee di gërëm sama camarade bi euh, Fallou Mbaye ak sama waa ji mooy ma koy nuyu bu baax a baax di ko wax dig daje ak keneen. di nuyuwaale di soddaale grâce à si ak grand Alioune ñoom waaw sonn nañ ci bu baax a baax a baax a baax mm. di leen sant di leen gërëm bu baax macha allah ak Awa Ndiaye tamit